nañu jàpp ne loolee moo dal dee sooke mbir moomee yéene kaay bi ne bureau d'enquête ak d'analyse naka moom moo leen jox enquête bi ngir ñu xool ana lan moo sooke boobule l'accident ñoom blessé yi ñëpp ñëpp génn nañ ki nga xamante ni miiru bi rek moo des ca hôpital gannaaw bi nga xamante ni ci ab damm damm la am yéene kaay bi ne fermeture aéroport Air Sénégal naka destination Charles de Gaulle naka Air France ak rampe de piste naka Boeing naka lu moo defoon ci ay nit mu ngi toll ci quatre-vingt-cinq soixante-dix-neuf passagers dix nag ñoo am ne ay gaañu gaañu tentative de décollage maanaam dafa bëggoon a naaw dem waaye naka yooyu dafa mujjee tagatémbe yéene kaay bi ne moteur ba moo amoon jafe-jafe ndax wàllum ndox naka bokk na ci li nga xamante ni si moo ko dal dee sooke yéene kaay bi ne avion ba ak phase décollage Air Sénégal Transair les éclairages ak experts yi nga xamante ni ñoo kaay bi di a ndax njort nañ nag ab jafe-jafe ci wàllum ndox naka bokk na ci li gën a mbir mi waaye nag xamante ni si moom boobu a paan buy ñëw saa ne mun naa ñëw état de force naka le passage nag yéene kaay bi ne fi ni wàllum napp gi Bassirou Diomaye Faye teg na ca tànkam président Bassirou Diomaye Faye mu ngay ordonné ñu càmbar naka code de la pêche naka ba noppi naka daal dee càmbar li nga xamante ni moo di pavillon sénégalais comme évaluation ak accord de licence de pêche yi yéene cabinet publication liste des navires autorisés ci réew mi naka un pas la woo xamante ni si bëgg nañoo leeral wàllum napp gi si réewum Sénégal accord de yi nga xamante ni si Sénégal dañ na ko am union jën wa naka tal di koy teg ci loxom ndax bëgg na jën wi naka dal def Sénégal nag am jafe-jafe gis jën nag waxasuma nag Sénégal lekku jën bu baax nag te na leen ñu bëgg nag fi tubaab yooyu ñu dal génne ba ñu set weñ lii génne si réew mi mun a des ci réew mi loolee la Bassirou Diomaye Faye bëgg yéene kaay bi di enquête indiwaat ci leen ci Saint-Louis naka foofee naka jakartaayam ñoo ngaay seme pagaay bi naka waaye itam di yàq ay wi nga xamante ni na ko mu toll ci 83 millions yi nga xamante si moom maître Moussa Diop mi fi nekkoon directeur Dakar dem dikk cour des comptes ba nëgër nag nee nañu épinglé ko wax ci Abdoulaye Sow mu yëkkati ay kaddu nee na ci biir campagne bi la bëggoon a changé Amadou Ba waaye nag amul woon pexe waaye nag def na jàpp ne fi ñu doon Ba ak Macky am na joote goo xamante ni doxoon nañ diggante bu la a changé waaye loolee mu jëw na antu wal fajër yéen kaay dikkaat ci pouvoir premier ministre Ousmane Sonko naka dal dinaa yee yéen a nag moom la xëy xëtee libération yéen kaay bi ne fi mu yoo xamante ni daanaka lépp ndax ndax saay naka daanaka dafa ndax fori new yéen kaay bi ne fi naka warees nañ ko mën a leeral waaye bu nëgëj naka mbir mi nee na booy nag dara leeragul ca de l'informateur yéen kaay ci mbir mi nga xamante moo di épidémie fièvre hémorragique Crimée Congo yéen bi ne fi Sénégal lim nañ ci ab juróomeelu cas boo xamante ne ci mala yi ñu wax ci mandat yéen kaay mi dikkaat ci immigration clandestine dilem la boo xamante ni moo ngi ci diggante dund ak dee ñu yaakaaroon ne mbir moom jeex na waaye ba nëgën naka gaañi moom ñoo ngi fabu rek di jaar ci géej gi ngir dem ca bitim takk na lool de cey barsa wala barsa kañ lay jeex ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg wéy leen di gën a abonné ci chaîne chaîne YouTube bii di syndicalisme TV la télévision du moment bi leen di jox mbooleem xibaar yu wér wóor ci à temps réel